gis nañ ni waa Yewwi Askan Wi ba ñuy door ci élection euh, électorale yi nga xamante ne ni euh, jotoon na fi am muy élection locale yi pardon euh, ñoom nag dañoo booloo woon waaye nag gis nañ ni jamono ji ñi ngi dëgmal nag li nga xamante ne ni moo di élection présidentielle yu 2023 yi incha allah 2024 mm-hmm. autant pour moi gis nañ ni nag affaire bi dafa commencé indi ay ku nekk jéem a jaar sa yoon sax que nag bi ñuy door waxoon nañ ni seen ànd bi ci locale yi lay yem itam ak législatif yi gars yi nag commencé di si am ay wax yoo xamante ne nii yaa ngi ko ciy dégg Omar muy que ni ñoom waxuñu woon lii euh, te ñoom début bi ñëwoon nañu carrément ne euh, seen ànd si local la yem ak législatif euh, présidentielle yi ku nekk demal sa bopp après nag certes bu deuxième tour amee dinañ xool ko ci jiitu ñu jàppale ko mu dem. Mm-hmm. Mm-hmm. ma jigéen yeewi askan wi. Mm-hmm. gars ñoo bëgg rek dugg ci coow loo xam ne jaru ko. dafa am benn mbir bu am. mooy la ñu waxaale woon tamit loolu la bu ñu àndee ci local ak législative bu ñu demee président sel ku ne dem bayal sa bopp waaye dañ ci teg lenn bu ñu demee candidat bi génn. ci deuxième tour. candidat boobule ñu jàppale ko. comme ni mu amee woon en 2012. te bu ñu jàngee ci wàllu taarix mooy élection yi mu si am Sénégal yëpp candidat yi tasaaroo bari. Hmm. moo gën ci opposition. benn élection bu ñu fi am cinq candidats di deux mille euh, dix neuf. Mm-hmm. da ngay xool ni dafa yomboon ci njiitu réew mi. Mm-hmm. kon candidats yi tasaaroo ci yeew yi du yàq dara man loolu laa gëm. Mm-hmm. candidats yi tasaaroo du yàq dara mais lépp na doon rek mu lu sincère. man damay fàttali benn wax bu Barthélemy Dias doon wax mu ne opposition bi amul ay leader politique ay dealer politique la am ay dealer politique la am maanaam am na ci ñoo xam ne ñu ngi mbubboo opposition bi di dil te heure bu ñu demee ba benn jamono rek ngay sentir lu mel noonu bu dee ni tey jii éclatement boobu dafa am kenn rek lay favorable mooy Ousmane Sonko. waaye hmm. lu baax ci moom la parce que nag neexul ba neexul bu dee ni yeew yi cent pour cent la quatre vingt dix pour cent yi Ousmane Sonko la kon seen ñàkk ànd lu gën la mais teewul ligne bi ñu gëm ñoom maanaam ligne bi ak doxin bi ñuy dox rek nan ko bokk. maanaam dafa mel ab jàkka rek ñun ñëpp dañuy taxaw du julli mais wóor na ni kenn du ëppal ay ràkka mm-hmm. na ku ne def li mu war a def ku ne liggéeyal boppam loolu tax boo xoolee mm-hmm. li ngay des fois ñu reproché Khalifa Sall loo xam ne d'accord wala ñu jiñ ko Malick Gakou wala ñu jiñ ko keneen mm. mais waruñu ko reproché xamul tax mm. ñoom nag danoo yor ay parti yor ay militants mm. mais aussi tamit euh, mën nañ di ànd ak Ousmane Sonko mais du tee aussi tamit ñu liggéeyal seen bopp liggéeyal seen parti te man liggéey boobu yëpp Déthié di def Malick Gakou di def xalifa di def bu dee ni Sonko nekk na candidat. Sonko lay jariñ. parce que bari na ci ñoo xam ne Sonko doo wax problème mu parrainage mais bari na ñoo xam ne tey ji bu dee ni parrainage fi am. ñoom dañ fiy jugee. te nguur gi jeu bi ñuy joué foofu dafa jàpp ni benn Karim Wade. Mhm. wala benn Khalifa mën nañu yàqal. Mhm. Euh, mag kii. Mhm. dama lay jox mën nu yàqal kii mais dama lay jox benn secret ci yeewi. loolu rek laay tëjee 30 secondes. dafa bari ñu nekk ci ñoom ñoo xam ne. <laughs> Uh-huh. danoo gëm ni Sonko du nekk candidat lu tax ñu ngi ànd ak moom mais danoo gëm ni Sonko du nekk candidat te Sonko bu nekkul candidat réew mi ku koy jël ëllëg da koy for maanaam maanaam da ngay topp ci am di dox lu mu waddal nga for hmm. bu nekkul candidat léegi Sonko il faut que mu jàppale kenn ci opposition bi kii Sonko di jàppale maanaam Sonko mën na jóge ci roi nekk ak faiseur de roi ñoom loolu lañ jàpp ki muy jàppale mën na jël réew mi ah, moo tax bari na ci ñoom ñoo xam ne tey ji dañuy carte du yoote uh-huh. mais carte boobu ñuy carte uh-huh. ñoom bari na ci ñoo xam ne bu Sonko tey ji nekkoon candidat ñu rocc seen candidature dem jàppale ji Sonko uh-huh. waaye nag comme Sonko mi ngi ci ay jalte jalte te xamuñu lan mooy xew ëllëg ñu ne nan dàq seen wërsëg ñoom itam